ya xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi wa sahlan wa tarhiban bilaa mooy ji nga xam ne njariñam dalay weesu yow jàll ci ñaneen saa yoo xamee ne ñaari xeeti jëf yooyu taxaw nañ gën a la jox yitte jëf ji nga xam ne njariñam day jàll ci day jàll ci ñu ci des waaye ñu waxoon ne itam loolu buñ koy waxit farata yi taxul ñuy wax bokku ci farata yi moom bokku ci julli nit ki lay gën a jariñ xaj na koor nit ki lay gën a jariñ xaj na aj makka nit ki lay gën a jariñ xaj na waaye du tax nga ne kon nangama nga fee bu ma ko defee moom danaa jariñ keneen ak keneen kon naa bàyyi di te ref loola déedéet farata yi moom mbirum boppam la moo xam ne yàlla def koo gàll gàll goo xam ne amut lees ci soppi wala lees ci xalaat noonu rek lees koy defee ba mu ci jógee mu wax nag ne la ca tegee mooy jëpp-jëf joo xam ne dafa diis ci sa bakkan ndax doomu aadama bakkanam fu mu toll la gën ci moom da koy jéem a xañ da koy jëm a tere bu ko defee nag kon bokk na ci li nga mën a jox comme mandarga ci nga xam jëf ju gën ci yow jëf ju gën a diis ci sa bakkan rek jooju mooy gën ci yow wax na itam nag wane ne loolu itam nag doonu ne ñëpp la maanaam du ñëpp yam waaye ñenn ñu nekk ak seen mbir nit ki nga xamante ne yàlla def ko nattoo mu mel ne loxoom tàlliwut julli rakk yu bari wala jàngal xuraan yu bari loolu moom mën na ko du jafe-jafeem waaye tàllal loxoom jox nit dara lool moom mooy jafe-jafeem loolu mënut kooku la gën ci moom bu koy digal ak ak a yar ak tàggat nañ ko tàggat ca loola ndax fa la jafe-jafeem nekk niki noonu itam ki nga xam ne jafe-jafe topp nday jooram la yor la def nga xam ne lu mu jëfandiku rek ci xeetu jëfandiku wala xeeti naan du doyal du doyal kooku it foofu la gàllankooram nekk buñ koy faj foofu lañ koy jaar ak yu mel noonu yu baree bari ni nga xamee itam ki nga xam ne yàlla daf ko jox feebaru bëgg fés fés day yitteem fés fu mu toll day bëgg di fés day bëgg di siiw day bëgg di di di ràññeeku ngir àdduna rek kooku itam liy saafaraam mooy ñu nëbb ko denc ko laneen loo ko def loo mën na koo def te du ci am benn jafe-jafe waaye lii jafe-jafe mooy fi ñu war a fese ñu nëbbu ko mu bañ fes loolu moom day metti ci moom kon buñ ñu ko bëggee defar foofu lañ koy jaara defar ka moom it bu bëggee defar boppam góorgóorlu ci boppam foofu mooy yoon wi gën a gaaw pour mu jaar ci ngir defar boppam ndax foofu la jafe-jafem nekk mu teg ci nag ne xeeti mooy yàlla itam gannaaw jëf la ak ñàkk def te mooy mooy yàlla wan topp ak mooy mooy yàlla yitam bi ci gën a bon mooy mooy goo xam ne day indil xolub nit ki ak wow day wowal xolub nit tey day fàttaloo nit topp yàlla loolu nag ay xeeti mooy yàlla yu bari la te dana ci ñëw ci kanam am na yaatal gum yaatal ca kanam a kanam téere bi ci mooy yàlla léeg-léeg sax njariñ lu mën a amal nit donte na li cosaanam mooy day lor waaye am na foofu mën naa jural nit njariñ loo xam ne defoon ak topp yàlla sax du ko ko jural dana ci ñëw ca kanam kanam mu wax nag ne ci biir jaamu yàlla yooyu muy topp yàlla yi li ci gën gannaaw bu faratee jàllee mooy tudd yàlla tudd yàlla moomu nag moom it dafa amaat ay xeet ci biiram waaye am na bu ci gën ci tudd yàlla yi kon fii day mel ne sëriñ bi da lay tuddal gannaaw bi mu la soññee ci jëf lu baax tuddal la lenn ci ay jëf yu baax yoo war a farlu war cee góorgóorlu wan la itam ci seen biir ay tolluwaay yu wute yu ñu am ak ni nga war a fexe ba lu ci nekk nga jël la ca gën nga jëfandikoo ko mu ne tudd yàlla moom yi ay xeet la yu bare bare bare bare bare yu wuute waaye bi gën ci xeetu tudd yàlla mooy tudde ko ci téereb yàlla bi mooy alquran jàng alquran mooy xeet wi gën ci xeetu tudd yàlla yépp waaye nag bu ñuy wax loolu itam mooy day ànd ak settantal ak di teewlu la ca ne teg ca ne xamal ne darajey jàng alxuraan yegg na ci bu ànd ak ak teewlu benn laaya benn blaaya rek boo ko jàngee ci alxuraan te seetantal ko teewlu ko sa kem kattan ak fa nga tolloog la nga man mooy gën fuuf ci yow wàcce ab kaamilub lëm te teewloo ci dara seetantaloo ci dara kon foofu wane na ci doole jàng alquran waaye wane na ci itam doole yi teewlu li ngay jàng bañ koo jàng nii ngir di dem rek boobaa nag ak anam foo ko mën a moo xam da ko koo jàng ci julli moo xam da koo jàng ci di ko di ko di ko tiim di jàng nii rek wala nga di ko tari wala nu mën doon loolu lépp aw la wu màgg màgg ni itam boo jàng alxuraan itam gannaaw ba nga koo teewloo bàyyi xel li ngay jàng nga jàng ko ca kaw béral ko ci sartu bu dee na yàlla musal na la ci sal xam nga ne boo dee jàng ci kaw it du tax mukk sal dugg la ci la ngay def bu boobaa nga béral ko ca kaw moo gën ndax ci la ko say cër di gën a yëgee tayit kaneen mën na saa dégg topp la ca ak yeneen njariñ yoo xam ne am na beneen bunt ab chapitre bu mu ubbil jàngal xuraan ca kanam danañ ca yegg moom itam buñ ca yeggee ca gën a yaasale bu baax li aju ci jàngal lépp ak ngëneelam ak dayoom ak atte ci ajoog ni ko war a defee mu bokk na ci yu baax yooyu itam nit ki di góorgóorlu ci di naafila di julli ay rakk yoo xam ne du farate ci moom coobare rek lay doon ci moom ak bëgg lu baax waaye naafil yooyu it nag xamal ne la cay cosaan ci naafila te gën ca mooy nga defe ko ci sa kër defe ko ci sa kër lu dul yenn naafile yenn yi rek am na nag ci ay naafila yooyu moom defe ko ci jàkka baax na lool wala moo gën misaal buñ ko doon wax mooy lu mel ne ñeent rakka wala ñaar ya ngay jëkk julli laata tisbaar ak takkusaan yooyu defe ko ci sa kër moo gën nga di ko defee nga di ko defee astafurlah nga defe ko ci jàkk ji moo gën nga di defee sa kër laa bëgg a bu weesoo yooya yi ci des yëpp la gën mooy nga defe ko ci sa kër mooy gën nga defe ko ci sa jàkk nga defe ko ci jàkka ñaari rakkay fajar defee ko ci sa kër doog ñëw ci jàkk si jàkk ji moo gën nga defe ko ci jàkk ji donte ne am na ay atte démb tuddoon nañ ko euh, ñaari rakk yi ngay julli gannaaw timis wala ñeent wala juróom-benn wala juróom-ñett defe ko sa kër moo gën nga defe ko ci jàkka ji bu fekkee ne sa kër soriwu la bu dee ne fi ngay sëlmale timis ak fa nga yegg ci kër ga soriwut bàyyi ba yegg sa kër defe ko fa moo gën ndax yonente bi aleyhi salaatu wasalaam noonu la ko daan defee ñaari rakk wala ñeent gannaaw julli ajjuma itam defe ko sa kër moo gën defe ko ci jàkka ji bu dee ne soriwu la ndax moom yonent bi aleyhi salaatu wa salaam noonu la ko la ñu julli gannaaw gee it ni noonu defe ko sa ndax it lislaam day bëgg li ñëwoon ci xadis yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne bu leen jàppee seen néeg bu leen ko def comme bàmmeel maanaam dee leen dee leen jaamu yàlla ci seeni néeg ngir bu ëllëgee mu seeral leen ci seen borom mu ne ni ki noonu it naafila guddi itam am na ngëneel lu rëy loo xam ne yëmut naa naafila waneen waxtu ci waxtu yi ci des rawatina nag mujj guddi ga moo ci gën a màggati moo ci gën a bareeti moo ci gën a bareeti tuyaaba yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madadi alal wasa naafila set guddi juróom-ñaareel gi ci weeru koor sopp nañ ku ci julli juróom-benn rakan juróom-benn rakan rakan bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng xul yaa ayuhal kaafiruun jàng xul huwallaahu ahad lu ci nekk juróom-ñaari yoon aay yu ci nekk des na ko ci bindal aw yiw te dana mel ni itam ku saraxe ju junni dinaar te lu mu ñaan yàlla mu may ko ko te des na ko bindal itam tuyaaba jutal ne li mu bisi àdduna bi yépp te xaraf wu ci nekk it des na ko ci tabaxal pale bu rëy àjjana yi ku ci bëgg yeneen leeral dellu ci xurratu ayni bu sëriñ sañ bu mbàkkee page 143 yaa xayra day finaata bil bisri wal madadi alan wa sahlan wa tarhiban bila